bisimila mbokk waa Leewtoo TV ñu leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ñëw ak yéen nag si revue de l'arène bi nu doore kook sunu lamb sunu lamb nag dafa ñëw def tey gëstu bu yaatu lu waral taf euh, Ama mii mi waroon bëreek Tapha bañ combat bi à la dernière minute nee ñu nag kër kii dem si yàlla euh, Falaye Baldé dafa xar ñaar côté bi Ama Baldé côté bi Jules Baldé Magdia Magdia nag nee na léegi Ama Baldé fu mu neex na dem parce que nee na géretul carrière comme que léegi Ama Baldé mag la ba mooy décider boppam na demal boppam butal boppam combat di waxanteeg promoteur yi moom rax suñu ba set nee nañ bi nga xam ne mooy Boubacar Niang laaj na ko nee nañ ko nee nañu Luc Nicolas moo bëgg combat bi bëgg na combat ak Ama Baldé moo tax mu mu yàq combat bi ko doon dox si digganteeg Tapha Tine kii nga xam ne mooy Jules Baldé nee na moom amul lu mu léegi promoteur yi moom la ñuy woo moom la ñuy te léegi magu boppam la nee nañ ko nag kan nga yaakaar ni Ama Baldé moom la ñuy jox ginnaaw bu mu bañee ki nga xam ni mooy Tapha Tine daal daal moom daal xam na daal li lu wóor ba wóor mooy Ama Baldé bëgg na bëre ak Bombardier bëgg na bëre ak ki nga xam ni mooy Modou bëgg na bëre aussi ki nga xam ni mooy Gris Bordeaux loolu daal la Jules Baldé wax staff ñoom tafaati nag ñoom dañoo jommi bu ñu xam bu ñu yëgee ni Ama Baldé delluwaat na avance bi ñoom nee lu leen jaaxal mooy 14 heures maanaam ñaari waxtu si ngoon si lañ yëg ni que Ama Baldé nangatul bëre ak mooy muy muy mbir bu boo xam ne daal jommal nag staff bi nga xam ne mooy staffu Tafatine journaliste bi nag ki nga xam ne mooy Boubacar ñaar bu mu laajee po Abdou Fall Pa Abdou Fall nee na moom amul dara lu muy wax Ama Baldé mais daal benn conseil la ko jox en tant que papaam ak magam nee na daal nit ak wala mbër ak ku mu mënti doon amul lu dul kàddoom nit day respecté kàddoom ndax kàddu si leen nawee te tamit si ngay gën a nekkee koo xam ni nit ñi dañ lay gën a respecté leen li nga xam ne journal bi ñëw na si mooy euh, CNG bi war a recevoir tey si ngoon euh, promoteur yi ne ndax promoteur yi keroog si réunion bu amoon fee si arène nationale ñoom daal lu ñu doon ñaan mooy euh, na CNG bi wàññi location arène nationale bi ndax nee ñu un million si ay frais maanaam location beeg sécurité bi loolu yëpp dafa bëre te na leen aussi na leen ubbil li nga xam ne mooy stade Iba Mar Diop ñu si mën a euh, taxawal seen ay combat keneen ki nga xam ne taxawal na combat nag mooy Assane Ndiaye Assane Ndiaye taxawal nag ñaari combat yoo xam ne ay combat yu espoir yu neex la Tafa mooy bëre ki nga xam ne mooy Alioune Seye Junior fils de Balla di tesante ki nga xam ne mooy général Malika date bi nag jàppagun ko dañuy xaar euh, CNG CNG bi ubbi date di commencé moom mun a jàpp date bi nga xam ne si la mën a euh, ñaari combat si la war a mun a am écurie ba dajoon moom bilan am nee nañu ren bilan bu baax la parce que am nañ 14 victoires 2 défaites ak 2 nuls lu jeexalee ak sunu lamb bi nga xam ne tey dafa xëy dalal kii nga xam ne mooy Ndiouga Dia Ndiouga Dia nag soo leen ko déggee moo nekkoon entreneur Rock Énergie mais léegi change na poste mi ngi nekk léegi superviseur moom daal nee nag xam ne Balla Gaye mbër bu mag la champion la mun na daan ku ne mais nag d'accordul ne daan na Modou Lo ñaar yoon rek moo mun Modou Lo nee moom jàpp ne Modou Lo moo mun Balla moo mun Balla Gaye te suñu bëreewaatee sina lépp di leer moom na lu mu gis nag pour Papa Sow te moo xam ne moo xaw a yéem nit ñi nee na Papa Sow ak Garga Mbossé mun nañu bëre te pourtant ñoom ñaar ñëpp ñu ngi dëkk parcelle ñu jeexalee ak Leewtoo point net Leewtoo point net nag dafa xëy di dalal ci micro a Faye Niang ki nga xam ne mooy guy gi guy gi daal nee na mbër yi mag yi nañu mën a nañu tendre la perche ñi nga xam ne mooy mbër yu ndaw yi pour nu mun a bëre te nee nañ nag moom li mu jox conseil yi mooy na mbër yi mag yi wàccee seen bopp tolloog nit ñi mun a bëre ak xale yi ndax ñoom pratiquement duñ def buzz amuñu buzz te mënuñu feesal stade wasalaam bu subaak jàmm